ñoom laalee ñu en tout cas si euh, décès bi nga xam ni population bu Pikine ñu leen koy euh, tuumaal Djibi Sadio Dione. Aziz Gueye bu ñu noppee ci loolu tàbbi ci lan. alors comme euh, très rapidement gis ngeen image bi yanj bi kii moom xam naa kenn du ko présenté keneen ndax am na locataire bu bees mu doon ay images yoo xam ni c'est largement partagé si li nga xam ni moo di réseaux sociaux yi Djibi Sadio Dione. mooy xaw ma fan la de géej gi rek laa gis. ah fii bëggoo faa dem. fii de xanaa grand Cheikh Sadio wala professeur mi nga toogal ah, moom ah kon fii ah, ah, xam yoon bi xam na ko yoon bu rouge bi mi ngi noonu en tout doon na image yoo xam ne c'est largement partagé comme ni ma ko waxee sànq si réseaux sociaux yi hmm. mooy la rencontre du président euh, Macky Sall ak ki nga xam ne mooy le président élu euh, monsieur son excellence président euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye waaye tamit si wet gi aussi ñu ngi remarqué ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko daal di koy accompagné Djibi Sarr dañuy hmm. xool ñi nga xam ni moo di ñooñu seetaan image yaa ngi yaa ngi lool en tout cas euh, c' est largement partagé si réseaux sociaux yi waaye tamit sénégalais yi aussi jibi sa di rafetlu bu baax a baax image yi nga xam ni euh, gis nañ ko gis ngeen son excellence le président Macky Sall mi nga xam ni mandaam le deux bi lay jeex Bassirou Diomaye Faye war kaa wutu waaye photo bi nga xam ni c' est ko apprécier bu baax a baax mooy euh, ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko di nuyu ak ki nga xam ni moo di le président Macky Sall donc image yaa ngi gis ngeen aussi le successeur du président Macky Sall Bassirou Diakhar Diomaye Diakhar fay ak son excellence sourire aussi am na lu mu undu donc après xam naa ni dina leen bànqee ngeen ko càmbar ci plateau bi en tout cas photo yi daal doon na loo xam ne photo yi yoo xam ni euh, population bu Sénégal dañ ko rafetlu lu baax a baax gi nga image yu yaa ngi donc ah, xam naa moom euh, d'ici quelques jour rek euh, bassiro dina toog fii daal fi wuute ki nga xam ni moo di son excellence le président Macky Sall donc image yaa ngi Djibi Sarr Bassirou Diomaye Faye ba léegi nii donc en tout cas c'est ak ñi nga xam ne ñoo di population Sénégal Djibi Sarr euh, lii mooy image du jour yi nga xam ne tamit mooy tëj partie bi nga xam ni moom lañ jagleel actualité bu Sénégal. am na solo merci beaucoup Abdoul Aziz Guèye kon ñu def noonu ba kañ ba ci kañ. jërëjëf kon ba suba ak jàmm incha allah ak jàmm incha allah. noonu la ñu defal indil ñu actualité jërëjëf Abdoul Aziz Guèye ah, ci ci participation ci émission munu mënu ci ñàkk ndax moom moo ñuy chaque jour campel li nga xam mooy décor bi campel ñu tamit ñu du mën a dugg ci débat bi donc li mu wax loolu la mooy rencontre bu am ni ki tey suñu sukkandikoo ci moom ay radaaram nee na ci booru 16 heures la am dox ci diggante le président Macky Sall ah le président Bassirou Diomaye jaxaar fay ak itam le président Ousmane Sonko ak ñeneen ak ñeneen mais ñett ñooñu daal ñooy ñi nga xam ne ni ñoom la ñu jàpp ne ñoom ñoo nekkoon ca waxtaan wa waaye gën na cee fës itam ah, ñaari eh, président président sortant ak président actuel donc di euh, président Macky Sall ak président Bassirou Diomaye Diakhar fay alors monsieur le ministre bi nga gisee image yi Abdoul Aziz daal di jeexale donc euh, ban sentiment moo lay animé defe naa sentiment d'abord mbégte mhm. ndax euh, suñu réew jaar nañu fu bare ci jamono yi mhm. jaar nañu aussi fu metti wante élection yi bu mu amee dimaas te yàlla def mu nekk élection yu joxe résultat boo xam ni amul laam-laami te ñëpp nangu ko ñi ko seqoon yëpp nangu ko tey suñu fësalee daje président bi toog te war a dem talaata ak président bi ñu fal defe naa lu rafet la ci suñu démocratie dama ko ciy am mbégte bu baax a baax te xawma ndax bi mooy bu jiitu lu mel nii am ndax euh, fàttalikuwuma ci jamono diggante Abdou Diouf président Abdou Diouf ak président Ablaye Wade ñu fësal lu mel nii fàttaliku ma aussi ñu fësal lu mel nii diggante président Macky ak euh, président Ablaye Wade. Mhm. mun na am amoon na. Mhm. mun na am amoon na. Mhm. mais fàttaliku euh, ma fësal bi. parce que ni ko tele bi fësalee defe naa ni am na solo trop. ci euh, li tubaab di wax dédramatiser. Euh, passation bi jóge benn nguur jëm ci beneen nguur bu bees te dana am aussi njëriñ dana am njëriñ surtout ci kii nar a toog muy le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu teel a jot dossier yi ëpp doole ci ci réew mi mhm. parce que kuy kuy ku nar a toog balaa ngay toog nga xam ni yii dossier nga war a am sa loxo xam aussi Sénégal nañ la tëdde parce que am na li ñuy wax ci biti am na li am ci biir te li am ci biir mooy li nga xam ni mooy li ngay jànkonteel mooy ëpp solo mooy ëpp solo donc xam ko ci teel dana tax nga mun a fent yoon bi ngay jaar ak proposition yi nga defoon nan nga koy mottalee ak aussi sa tànneef noo koy defee leneen li ma ci gisit loo xam ni xam nga sànq sa nattangoo bi mu ngi lay tooñ Abdou Aziz ci science bi mm. macha allah merci wante fële tamit am na lu ma ci gis loo xam ni man dama ko doon ñaan toujours mm-hmm. te gënuñu woon ñun ci étiquette bi fi mun naa wax bi fi sengoor bàyyi mooy costume bi ak ñetti yëre yi dañuy wax ay ou da sol costume mbaa da sol ñetti yére loolu loolu laa bay woon man mooy génn gouvernement obligation la woon ci sphère étatique waa palais mooy ñetti abdou mbaa yooyu xaftaanu xaftaan ak turki ak tubéy c'est obligatoire defe naa ni eh, nii eh, président eh, Bassirou Solo am na solo. waaw man ndax dana dana wàññi gëtën bi muy gëtënee nit ñi ci yenn taxawaay yi xam nga soo soxoolee réew yu bare léegi boole ak réew yu mag yi colinu njiitu réew yi. Hmm. dafay gën a méngoo ak colinu askan bi. te loolu aussi defe naa ni war nañ ci bàyyi xel du te dana nekk loo xam ni su fekkee wéy nañu ci dana encourager économie locale bi parce que am nañu économie boo xam ni eh, xam nga suñu styliste yi suñu tailleur yi mën nañu ñaw bu baax a baax te da ngay dem sax sooy tukki nga gis ay commerçant yu jóge ay Nigéria yu jóge yenn réew Afrique ñëw fii di jënd ay yére di ko yóbbu ñun suñu bopp fii léegi ñu bari ci ñun lépp looy sol ñoom ñoo koy ñaw même man bu su may costume mooy sol costume costume yi fii laa ko doon ñawee suma tailleur Thiès la nekkoon moom ay ñawal costume suma jënd costume bu jógee bitim réew donc defe naa ni ful bokk na ci consommer local bi bokk na ci loolu aussi dama ko ci remarqué daal. am na solo ci ci photo bi. Mhm. ci photo yi euh, balaa ñuy dugg tamit ci fond waxtaan bi xëy na waxtaan mhm. jombul ñàkk faa am. Mhm. mais mais mais li nga gis. Euh, yow tamit même question bi rek ah. ban sentiment moo la animé wala lan la lay inspiré. waaw euh, mooy sentiment de fierté. et par rapport au fait que une une une fois. Euh, le peuple sénégalais s'est montré résilient. Mhm. par rapport ak euh, nombre de péripéties. Mhm. te nii wane nañu ni jafe-jafe bu bu ñu mënti jànkonteel. Mhm. le Sénégal est toujours euh, resté debout. on a on ay moments sous Senghor. tey jii nii. 62 euh, le bicéphalisme au sommet de l'État mhm. ak la ci xew yëpp mhm. jàpp Mamadou Dia rap si kaso bi <coughs> Valdiodio Ndiaye rap si kaso bi mhm. Joseph Mbaye rap si kaso bi Ibrahima Sarr rap si kaso bi et cetera dissout ay parti ak yu fa demoon yëpp dem nañu dundu les événements de 67 dañ koy fàttali toujours avec euh, euh, li nga xam ni moo daloon le député Demba Diop. bi nga xam ni pour des tendances politiques le groupe des Jacques Derneville am na koo xam ne yónni woon nañ ko jamono yooyu sax la ñuy commencé <laughs> nervi yi weesuwul weesuwul Sénégal euh, mm-hmm. ak Abdou Ndaxte Faye euh, bu ñu mm-hmm. jugé condamné. et puis mm-hmm. exécuté ko. avec euh, la mise à mort malheureuse de Moustapha Lô en 67 toujours. malgré li nga xam ne jàppoon nañu mënoon nekk crise entre Senghor et les chefs religieux. ndax Moustapha Lô fa mu bokk. tout à fait boo ñëwee 68 on a traversé également la crise ak